asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk internetu Lansar TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax mbokk yi tey dañuy ñëwaat ak yéen ci yóbbal bi fii ci Lansar TV tey ñuy ñëw ak yéen ci lenn ci njariñ yi nekk ci jàng Alqur'an mbokk yi Alqur'an di wax yàlla waaye Alqur'an di lu màgg waaye di lu barkeel. mbokk yonent bi sallallahu wa sallam dafa wax ñu jëlee ko ci abil amaama mu ne dafa dégg yonent bi wa sallam mu wax ne dee leen di jàng alquran ndax bu àllaaxira alquran day ñëw di ràmm ñi nga xam ne dañ daan jàng alquran mu ne dee leen jàng alquran ndax àllaaxira alquran day ràmm ñi nga xam ne dañ daan jàng alquran te di ko jëfee mbokk yi jàng alquran nag bari na yiw ndax yonent bi nee na man qaraa xarfan min kitaabillah ku jàng benn xaraf ci téere yàlla bi falahu dina am xasanatun yiw maanaam yàlla dina ko fay yiw te yàlla li gën a néew ci li muy fay mi ngi tàmbalee ci fukk mu ne nag ne waxul ne alif laam miim mooy xaraf alif laam baat la boo ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la kon loolu lépp yàlla dala koy defal yiw kon benn xaraf boo jàng yàlla dina la ci fay yiw te yàlla li gën a néew ci lu muy fay mi ngi tàmbalee ci fukk kon euh, di jàng alxuraan soo ko mokkale war nga fexe chaque jour boo xëyee nga góorgóorlu jàng ko bu dee benn isib ñaari isib ba ñetti isib sa kéemtalaay kàttan nga góorgóorlu ci waaye bu yàlla dogalee ne yow xëy na mokkaloo alxuraan waaye mën nga iji bo iji boole ngay fexe di iji boole ndax kii iji di boole day am ñaari yiw ndax coono bi muy daj ci ijji di boole ak boole biñ koy boole ba di ko mën a wax mu rafet day am ñaari yiw yooyu ndax am na ñoo xam ne e, bu ñu xoolu xoolul alquran mënuñ koo jàng ndax xëy na moqaluñ ko ba bu weñ daloon ci ci téere bi il faut que ñu dàq weñ ba pare doo ko mën a continuer e, di jàng kon kooku day am ñaari yiw boo mënul yooyu ba ba mënoo yooyu tamit nga fexe wut ku lay jàngal lu mu gàtt gàtt mu am saar yoo xam ne di nga ko ci mokkal mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni ne mu ne wa an wa an Ousmane Ibnu afan ñu jëlee ko usman Ibnu afan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax xayrukum man taallama alquran wa allamahu mu ne ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne jàng na alquran ba noppi waaye wëlbatiku di ko jàngale ñu ne kooku mu gën ci yéen kon euh, wayjur wu nekk war na fexe ci doomam mu jàng alquran ndax yiw yi ci nekk kenn xamul nu mu doy euh, mbokk yi alquran nag di ko jàng jàng lépp moo baax su fekkee ni mën nga jàng lépp nga tàmbalee ci baqara chaque jour boo xëyee nga am loo ci jàng ba keroog kaamin bi mat waaye alquran tamit amna na ay saar yoo xam ne comme ni saar bi ci mel ni xul huwallahu ahad bokk na wu gën a màgg ci alquran ndax yonent sallallahu wa sallam na ko nee na xul huwallahu ahad mooy saar wi gën a ci alquran ayatul kursi yu tamit nekk bokk ci aaya yu gën a màgg ci alquran bëri na bëri na ay ne tamit saar yu magala ku ci suratul kahfi di ko jàng par àjjuma baax suratul yasin di ko gudi guddi eh, suratul waqia tamit suratul mulki yooyu yëpp di ko jàng baax na waaye soo mënee jàng lépp moo eh, ala kulli haal daal alquran daal lépp ma màgg saar yëpp a màgg eh, liy solal bind bi rek mooy fàttali mbokk yi ñuy jàng alquran waaye yóbbu seen doom tamit ñuy alquran loolu lañ leen indiloon seen yóbbalu bés bi ci Lansar TV wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu.